Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser des commentaires gars. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Mbokk sénégalais, on fait, faut le maintenir 14 régions du Sénégal, la Nouvelle World Cup ñu leen di il ñi nekk également ci lal hôpital yi de février, yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire ak jënd ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu

yokkaat li nga xam moy donc contrat wu ndaw bi ni dal di koy xaatimal benen contrat lolou dañ nekk ni di liggéey du côté nak de l'Angleterre ci coupe du monde bi gaay nak nag nee nañ tey ki nga xam ne mooy ci banque bi daal lay démarrer ci côté droit bi kii nag di Gareth Southgate qui kii di euh, donc Bukayo Saka la préféré mu dal di départ donc qui di fo Foden donc selon les informations ci banc bi lay tok euh, tay li nga xam aussi moy donc Chelsea ndawam yi nga xam ne ñu ngi dem ci coupe du euh, monde bi Sénégal dal moo fi ëpp ay représentant ak Angleterre hein. donc Angleterre am ci ñett Sénégal am ci ñaar muy Edouard Mendy ak Koulibaly Maroc ak Hakim Ziyech hein. Thiago Silva donc bu ngay dem Zakaria aussi Canada ak quoi Allemagne euh, ki nga xam aussi moy Frankie de Jong nee na actuellement amul ben problème ak FC Barcelone mom ne il se sent bien ci Barcelone mi ngi si jàmmam nee na bu sa yoon sax dafay toog juróom-ñett ba juróom ñent bu fukki atat fofu daal daal foofu nga xam mooy ca Bayern de Munich jëm ci également joueurs yi nga xam ne ñooy ci coupe du monde bi gars yi bëri nañ ah bëri nañ pronostic yi na nag mooy donc Sadio Kaiser magnifique Mané ah du moom kese ki di beneen Benzema aussi bokku ci ah joueurs yi bëri nañ ah, donc Salah ah, demul <laughs> Land aussi euh, demut ñoom Cuadrado euh, bokkuñu ci gars yi ki ngeen gis nag mooy Topper Topper gars yi nag kii goal góol bi nar a góolu tey Sénégal ak Hollande waa na nag gars ah, donc waa mon mën nañ ne jamono ji moom mi ngi woon premier coupe du monde bi mooy premier match sax mën nañ ko wax ak li nga xam ne donc équipe bi ci jogante yu mag yu mel mom nak gay c'est le plus grand gardien le plus long gardien ci Coupe du monde bi ndax mi 2m3 2003 donc aujourd'hui mur euh, bu Hollande la gars yi fas yéene teg ci camp yi mais li meilleurs rek impossible n'est pas sénégalais et avantage gars yi inconvénient gars yi njool yi ma dañuy am problème sur les euh, donc mu ah, sur les euh, tirs à ras de sol donc ki ngeen ni également di Janssen, moom a jouer à la place de ki nga xam ne donc mooy Memphis Depay ni Jansen nag fa lay jouer nag ah ci Antwerp jouer jamono ji nag à 17 avec 17 matchs mi ngi 9 buts ah nekk na aussi dafa il est très athlétique, physique le quand physique aussi mom dal la gars yi jotee si ne tey moom Gakpo nek également ci euh, comme neuf neuf neuf 9 neuf donc loolu dal la gars di xol jamono ji mais euh, ki dal di Jansen la gars yi xelmati mooy remplacé Memphis Depay waaye gars yi di leen fàttali rek ah laf cat laf Sénégal moo nekk équipe bo xamné euh, premier match musuko ñak donc touba bi dafa né jamais 203 dañuy ñaan troisième bi amaat tay ñu baña ñakat ñàkkaat suñu match bi ndax Sénégal 2002 ñu suñu premier match contre ñi di wa France 2018 ñu également suñu premier match contre Pologne dañuy ñaanat aussi suñu premier match bi contre contre Hollande ñu daal leen di gaay gagné incha allahu rabi bu neexee yàlla suñu borom waaw bu démé ba yées ba yées ba yées ñu daal di am match nul match bo boo gaay tay match góor la match góor yàlla deug la match bo xamné gaay nak lay du match yi limay wax rek Aliou Cissé moko yor ben parti bi benen parti bi joueur yi ñoko yor donc Aliou Cissé bu tegee limu wara war Hmm? joueurs yi tamit dugg def li ñu war a def mën nañ suñ jot waaw li ci des nag lañ koy teg ci loxo yàlla et on a confiance on a confiance maintenant on pour parler de El Tactico Aliou c'est aujourd'hui par rapport ak li nga xam ne mooy équipe bi mu war a teg ci euh, face à la Hollande joxe nañ suñu gis-gis et chaque fois man dama am solo am lu may am solo lu may wax mooy que ne moom mooy entraîneur donc ñun suñu gis-gis lañ joxe mais moom mooy le sélectionneur donc c'est lui qui a les choix objectifs ci moom ñun choix yi def subjectif la donc 11 de départ bi 4-3-3 dans la mel ni Aliou Cissé lay donc 4-3-3 bi gay yi ñu ngi wax naan donc Sabali Pape Abou Cissé Koulibaly Diallo ah Nampolis Guèye ak Gana ci digg bi Crépin Boulaye Dia Ismaïla Sarr ah donc mais nag gars man li ma gis mooy kii di donc euh, donc ki Edouard euh, Ndiol ko moom ñu dogore Mendy dans les cages loolu c'est logique loolu moom c' très logique parce que Edouard Mendy ak moom mooy le gardien numéro un de l'équipe nationale du Sénégal donc moom am expérience boobu noonu ci défense bi gay gars yi ñu ngi wax di donc Abdou Diallo Kalidou de Koulibaly par Abou Sissé, ak kii nga xam donc kii di Youssouf Sabali à droite Abdou Diallo à gauche defoon aussi aussi bien jàngat wax leen ko option aussi parce que Abdou Diallo a joué à gauche pour ñu accéder dans sama vidéo maintenant Pape Abou c'est lu Pape Abou Sissé, parce que Pape Abou Sissé, premièrement moi, je connais, match yi joué ak équipe nationale du Sénégal am na lu mu wane lu positif deuxième chose mooy aussi Aliou Cissé dafa faral di soxla ay défenseurs xam ne ils sont bons sur la relance et Pape aussi c'est il est très bon sur la relance également bal batum bal aérien yi yi plutôt da ci ay moo ci gën a taxaw ki nga xam ne mooy Cheikhou il donc sera accompagné de ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly bi nga xam ne aussi moom xam ngeen ko il a de l'expérience relance yi également bu ñu fekkee dañoo nekk sur les euh, possessions yi nga xam ne euh, pressing haut bi moom dina ko mën a def moo tax mu daal di tànn si sama gis-gis euh, kii di aussi c'est ak coulibaly kii nag di Abdou Diallo ak Paris Saint-Germain yàgg na jouer gauche. Même l'équipe nationale du Sénégal, parfois, on peut voir monter sur les montées de balles. Et je pense que ça, c'est un bon choix. Tech Abdou Diallo, fauf, non, non, parce que Abdou Diallo, même vous faites mais ce n'est pas un salut 6, mais Sorrento. Il est aussi technique que salut 6. Ces sortes de balles également sont très bonnes. Et aussi, comme je l'ai dit, Amna a l'habitude de jouer côté gauche et Amna expérience Donc, ça ici, c'est beaucoup de risques. Hein. Donc, moi, je joue le Am expérience qui m'a tué, tué Maglon, qui joue le Finale Coupe d'Afrique et aussi, nous avons joué Ligue des Champions. Il joue ça, les mômes. rien à dire kii dama naan nañ ko ñaanal gars yi laf cat laf cat bu bañ am benn gaañu gaañu parce que tey le match là déterminant sur les ailes ñaari laaf yi moom gauche beeg droite bi C'est déterminant parce qu'il faut gagner. il a cette capacité de bien défendre il défend très bien machallah mais aussi il est technique et également de yek. donc il indi surnombre bi et que tay Sénégal pour man les Aliou Cissé teg 4 donc mom day ñëw ci possession bi di jouer sur les contre attaques et aussi sur la vitesse de ses attaquants ci milieu terrain aussi mi ngi teg man fi la xaw am rek ah, donc même bu fekkee ni lañ jotees muy Gana Gueye Mendy ak parce que ñom ñep ñoo bok profil même profil là même profil la et que tay buñu dajé équipe bo xam daf ñu tek pression mëna football kan moy génne bal bi loolu moom mu jaaxal et que tay pour man ki di donc ganna gay dañ ko wara a delloo parce que mu joué devant la défense bu démé demee ba ñaax Gana devant la défense ñu tek ki di kuyaté ak également ki di Nampalys ci milieu de terrain bi Cheikh kuyaté mi nga xam ne également comme je dis actuellement buñuy wax dëgg te yàlla rek tax suñu milieu défensif yëpp moo ci gën a nekk en forme moo ci performant moom moo nekk club am di jouer moom mooy def match yu master class am benn constance bi depuis championnat bu commencé ba léegi mu am kii autorisation pour jouer mi ngi enchaîné match et il est très bon actuellement sama gis-gis la ku nekk nag am nga si gis-gis mais man performance actuelle laay wax mën nañ aussi indi Pape Alassane Gueye bu ñu indee Pape Alassane Gueye aussi ce serait très bien ce serait très bien nga am ñaari milieu ñaari milieu défensif am aussi Pape Alassane Gueye même bu fekkee ne moom différence am ak ñee mooy que ne pied gauche la et que pied gauche boobu équilibrer ce milieu de terrain man gis pas Pape Alassane Gueye et surtout sur la verticalité boo bëggee am contre attaque ak attaque rapide Nampolis, il est bien rien à dire de N'Ampolis. Nampalys yàlla na N'Ampolis def li mu defoon Coupe d'Afrique mooy jógee ci réserve bi ñëw jouer parce que N'Ampolis n'avait pas tant de jeu comme ça réussisse, mon réserve bi la nekkoon sax moo loolu rek la xaw a tànnee Salif et on espère que tey dina def match parce que depuis début de saison bi enchaîné wu donc rythme moom mooy xaw Il dit Idrissa garde actuellement aussi mi ngi jouer Gana mi ngi joué avec Everton il fait de bons matchs même bu fekkee deful match yu maga maga mag a mag yi xam ne lañ ko gissé won mais Gana Gueye mi ngoog li xaw a inquiété gars yi li mu won Coupe d'Afrique dañuy ñaan mu bañ ko woné Coupe du Monde parce que Coupe d'Afrique il est passé à côté mais il a la possibilité de se rattraper parce que Gana c'est faire du Gana quand il le veut attaque bi Dia sar. ñu ngi nii ah trois lay teg si kaw maintenant nag suñu problème attaquant Sénégal nak nekk fi attaquant dafa met trop gay nek nekk neuf Sénégal dafa met trop parce que tu es esselé Bali du yegg Bali du yegg malheureusement donc dañuy ñaan tey nag bala ñuy yegg si te Ismaïla def loo xam ne mësu ko gis et Ismaïla de repiquer à l'intérieur parce que boo bëggee déstabiliser défense hollandaise bi boo toppee ligne bi rek di daw doo am dara te repiquer à l'intérieur Crépin aussi de repiquer à l'intérieur loolu day indi surnom bi aussi da leen déstabiliser parce que ñaari arrière latéral li ma wax chaque fois rek ñoom bu ñu yëgee dañuy bàyyi lu bëri ci ginnaaw dañuy bàyyi benn espace bëri ci ginnaaw Crépin aujourd'hui defal ñu li nga doon def Bruges repique vers l'intérieur am occasion dugal parce que tey yaa fi nekk en parenthèse benn Sadio Mané et defal nga ko ci Coupe d'Afrique bi peut 2019 wane waat ko def nga ko Bruges wanemaat ko kii di Boulaye Dia comme je dis Boulaye gars yi da ngeen koy noppal da koy noppalee mooy ngeen bañ muy décroché di ñëw ci yéen Boulaye Bally daf ko war a fekk si plus ngeen koy fekki plus muy gën a nekk à l'aise loolu la boo amoon nag beneen neuf de soutien ma doon dàq mais comme que si c'est lu suma gis-gis yàlla na teg leneen mais dernière information yu ñu jot lii la fas yéene tegagum donc on espère que ni donc tay Sénégal dinañ wone sen bop parce que aussi mom bu classé joueur yi jouer joué na joueurs aussi wone sen bop ñu fexé tay gaay nak sigil siggil Sénégal Afrique parce que nous sommes les champions d'afrique waru ñu ñew wone lo xamné ne néew na ñi la ñu wane Sadio Mané nekk fi ñak Sadio Mané nekk fi gis nañ fi Fadiga ken dox football gis nañ fi ñom El Diouf gis nañ ñom Henri Camara gis nañ fi ñom Bokandé donc gaay c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir gars de vous servir comme je dis wéy di like wéy di abonné on avance ensemble dans la magie des sportifs Jack and Jeff.